seeti moom mooy Macky Sall dàq na Ousmane Sonko lu tax mu dàq Ousmane Sonko ca nañu ñëw waaye dina waxaale waa APR nañu bàyyi coow deux nationalités yëpp da koy tënk ñu seeti Lam Tooro Lam Tooro Ari Bourguedé Ari Lam Tooro gërëm di leen sant une fois encore di leen gërëm ci bi nga xam ne fu ma dem ngeen taxaw teeru ma waaye tey du bés boo xam ne bésu tàccu ak sabar la tey bésu wax dëgg la bésu leeral askan wi li nga xam ne nag moom ñuy tuumaal bëgg a yàq sama politique bi nga xam ne moom laay politiquer jëm ci sénégalais yi une fois encore dama bëgg sénégalais yi xam lu leer mooy sama digganteeg li nga xam ne moom mooy nationalité yi ngeen wax double nationalité cooloolu du coolu bees coolu yàgg la bañ koy voté assemblée nationale di ko dugal ci loi bi muy nekk boobu xalaatu moon sax dinaa mos a nekk président de la république nekkuloon sama xel kon wax jooju jarul warante dangay nekk sénégalais pour nekk candidat doo sénégalais doo nekk candidat loolu jarul dem ci plateau yi di débat di xëcc di wax loolu laa bëgg ngeen arrêté ko yéen waa APR bëggu duma ci dëgg ay coow dangay nekk nationalité pour nekk candidat une fois encore soo ko nekkulee munoo nekk candidat cooleel na jeex soo amee ñaar nationalité bàyyi benn bi jël benn bi waaye munoo boole ñaar yi bëgg a nekk président munu nekk c'est valable pour man valable pour ku munti doon Sénégal c'est écrit sur noir et blanc dañ ko bind ci texte yi boo leen dematee ci plateau yi bu leen laajee wax jooju bu leen ci tontu parce que loolu nekkul débat boo xam ne dañ ko war a ko waxtaanee mu leen di tarrel ci Sénégal émergent laa bëgg ngeen di waxtaanee di ci xuloo di ci xeex di ci werante ba am ci ndam waaye lu jëm ci ay détails yoo xam ne soxla du ay wax dangay mën a nekk sénégalais nekk président candidat nekkoo sénégalais ngay abal loolu mooy mun a am loolu nag bëggatuma ko dégg ngeen koy waxtaanee tey wax naa ci gas nañ ko suul nañ ko ku nekk sénégalais am nationalité sénégalais nga ñëw ko am ñaari nationalité bàyyi benn bi jël benn bi kenn aayewu la loolu depuis jamono ay Senghor Abdou ab Abdoulaye Wade man tamit damay ñëw rek reconduire ko loolu moo am waaye nag nekk fi di ci werante di ci xëcc di jógal daanu lool laa bëgg mu jeex pour affaire Ousmane Sonko dama ne mënuñu nekk ci bërëb boo xam ne dañ fi liggéey ñu dënk la liggéey nga war a tee sa lamine tee sa lamine parce que jël sa lamine bi mu tax kon laalo laalo mbëpp am na laalo ñax am na waaye laalo mbëpp moo gën a rëtax loo xam gën a ko ci benn bi loolu mënul nekk da ngay nekk fonctionnaire kese soo amuloon parti sa mun nañu wax nga xam ne ne yow da nga nekk koo xam ne wax dëgg yàlla li la tax a jóg mooy askan wi nga bañ a nekk militant ci benn parti war a nekkoo chef de parti war a affilié woo ci benn association boo xam ne da nga ciy fës boobaa boo waxoon loo neex tamit du ñu mën a tee ñu bàyyi nga wax la neex waaye mënoo nekk chef de parti taxawaayu taxawaayu chef de parti nekk fonctionnaire di génn secret bi loolu mënut a ne mënut a ne wax nañ ko benn yoon mu yër tax lamin ma waxaat ñaari yoon mu gën a yër tax lamin ma waxaat ñetti yoon mu gën a continuer mel ne kokkali la waaye dëkk bu amul njiit ku nekk jiite sa bopp te bu ñëpp jiitee sa bopp loi du am Sénégal dafa am loi ci loi yooyu nañu dëkkandiku état bu fekkee droit amul kon lu neex waaye li ma def ci Ousmane Sonko exemple keneen koo ko def tamit da nga génn ci biti parce que du ma bàyyi dëkk bi ñu koy saax-saaxee waay loolu na waaye neex def ku dëgg dara dem netti la ko loolu dem du dem mais Ousmane mooy kan li mu buggoon mooy am tur li mu buggoon lii la xalaatoon am na leneen lu nekk ci ginnaaw lii ñu nag xam nañu parce que si dëkk bi nañu dëkk xam nañ nu mu demee da doon xaar ñu dàq ko mais dàq nañ ko moo doon xaar ñu dàq ko mais dàq nañ ko te dàq bi maa gën a article gën a décret te décret boobu boo demee tous les pays yi nga xam ne moo ñu wër ci àdduna bi amul benn dëkk buy nangu nga nekk ci réew nekk ci état di xam ay secret état di ko génne un secret ne se partage pas on le garde pour soi-même un secret ne se partage pas on le garde pour soi-même rawatina nga nekk ci état de droit républicain parce que suñu parti parti républicain la am na loo xam ne duñ ko nangu état de droit dañ ko respecté bu leen neexee nag ñu jël wax ji dem campagne ko Macky Sall dafa dàq Ousmane Sonko nañ ko wax waaye ci ay firnde yu leer laa ko teg ay yu leer laa ko teg may araftu ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal ak ñi nekk ci état bi li dal Ousmane Sonko keneen ko ko fi def nga nekk ci parti bi war a nga nekk feneen ci biti nga jëm parce que kilifa da ngay mot kilifa waaye bu fekkee da nga nekk borom kër nekk ci kër loo dundee sa kër sa njaboot dem di ko tasaare ci mbedd bi. tey reeruñu sama papa tey ak sama yaay dañ doon xeex sama yaay dafa kott sama papa wala sama papa dafa kott sama yaay da ko dompet da ko doon jooy sama papa mu mën sama yaay sama yaay mu mën sama papa loolu borom kër gi bu ko yëgee da naan borom kër gi du kilifa est-ce que man nuroon naa leen koo xam ne dama ñàkk fayda est que nuroon naa leen koo xam ne damay toog ñuy yéeg sama kaw di saw sama bopp est-ce que nuroon naa leen moom yéena ma faloon pour wax ma état de droit loolu laa doxal caaxaan yi laa bëgg mu jeex dañuy liggéey ku munul liggéey nga liggéey ku munul liggéey ci biti yéen a may dégg Sénégal nag amul farfarloo li am laa def bu la neexee ñu war di ko campagne ñoo xam waaye dëkk ci dëkk dafay am yoon dafay am yoon Sénégal yaa tous laissé aller ah, dem di boole fu ñu neex na leen dem na leen fu la neex waaye li ma wax ni kenn mënu ko indi sama wax jalu muus boo waxee fekk fa dara Ousmane Sonko am na lu nekkoon ci xelam li nekkoon ci xelam nag moo ko xam waaye ñun xam nañ ko ku fi yëngal ma dàq la ci kaw nga ton état bi parce que ñun ay xale nañu ñun ak ñoom ñoo bokk génération ay booy town nañu gënu ma nekk nante ci dëkk bi laa dëkk xam naa nu mu demee loolu foog sama costume cravate yi damay nekk président dugg ci avion wàcc noonu non damay dem ay soirée damay dem ay soirée xam naa la xew ci dëkk bi damay dem plage damay dem fépp damay dem ay soirée ay Dakar na door pas rat yëpp dama fay xool di xool xew parce que li xew ci dëkk naa ko amul dara lu ma ci dëkk bi je connais tout lépp laa xam Dakar na door pas ay ràcc ay na safak na biir yooyu yëpp dama koy damay dugg ci temps bi dama nekk président boo xam ne la sa ala yi dafa c'est trop yéen may dégg qu'est-ce que ça veut dire le désordre dans ce pays là y'en a plus hein ñun dañu gëm yàlla bu suñu mandat bi jeexee fii ñu xam ne fa la ko yàlla jeexalee waaye duñu nangu ku ñëw duñu dugg di liggéey suñu lu ñuy liggéey est-ce que d'accord ngeen loolu nekk ci kër sa doom di wax li ngeen xam ne moom ngay a moom ngay reere ça dans un pays il faut organiser un état de droit état de républicain sinon lu waay neex def qu'est-ce que ça veut dire mer naa mer boo xam ne du meru caaxaan li ma def nii mooy fula mooy fayda ku ci ànd ak ku ci àndul xaman na li mooy dëgg li mooy état de droit ok eh ay sabar yooyu yëpp arrêté